ma ne dëkk bi dëkk bi laa wax inondation collante waaw dëkk bee tooy dëkk bi dara tooy la woon suukar si dong ko tooy loo ndaw sàmba borom naar ñetti séeréer lii nag mooy coow li lii moo ma tax di nelaw añ ne guddi di nelaw bëccëg ndax damaa mer ma su ma meree rek je dor tard parce que man mënumaa imaginer pénurie de sucre au Sénégal lii war nañ kaa di ko jaayee fan ak juróom am ñu koy jaayee ñeen fukk ñee dem ba si ne ñoom bu balañ jaay sax ñeen fukk biñ la koy foog nga jënd leneen ñu mën laa jaay suufu kër sii e eh, ma ne eh, eh, lii yoon ma nit ñi mhm. dañoo soor mhm. da seeni suukar entre dans ma waaw il a parfaitement la raison parce que nous sommes dans une monde la monde maintenant est besoin de suukar imaginez liir bu juddu ñu defar laax yi ba mu sax soo mi ñu war kaa suukar fu ñu jëm fu ñu jëm surtout borom attaayekat yi ñoom tamit fu ñu jëm ak suukar si bu manqué man lu ma si gën a naqar yokk ngeen suukar si ñu koy muñ ma wax ngeen nëbbu suukar si dik pour gën kaa yokk eh kon na suukar si eh, my heart is hot dama ne na suukar si yomb daf fàttali combat tàngaay gi jëlal jëlal jëlal